king bi moom bu ñëwee xam ngeen ne toj incha allah xaar leen spectacle doy waar. maa ngi leen di fay staff bi laa bokk waaw. d'accord euh, gis sant yàlla rek sant yàlla rek parce que lu ñu mbébétoon la lu ñu bëgg la suñu passion la ñuy dund donc ñu ngi koy def ni mu waree yaakaar naa. mais gis nga ci au lieu ndax gisuñu. awards yi non man tojaguma fenn bay bokk ci awards yi quoi maa ngi bay sama wax nang waaw yombul mais dans la vie rien n'est facile hein on avec showbiz bi moom ñëpp xam nañ ne métti na yombul mais bon ñooñu góorgóorlu daal l'essentiel c'est de faire sa passion booy def li nga bëgg tu le fais même quand tu es fatigué da nga koy def. non déggoowuñu ko nag <laughs> man lug bi maa ko yor ba ma amee 9 ans ba léegi damay dakk sama bopp man ku ma xam dakk bopp la ma xamee. plein d'autres choses tey maa ngi nii maa ngi ci bon bon organisation yi donc ça veut dire que je suis aussi dans le showbiz. est-ce que mën nañu xam ban lien nga am ak Ngaaka Blindé ba tey nga bokk ci. Ngaaka c'est mon frère la moo tax sama frère la a def ak ah, a a dootul neex bàyyi rek seetaan yéen taal leen caméra <laughs> maa ngi leen <laughs> neex rek. c'est la fierté saint-louisienne. exceptionnel. l'or noir. ñu non du lu metti du ñu doon dundee rek la ñuy continuer dundee en fait peut-être que quelque chose dina ti changer mais mooy loolu ça va. Mhm. si les acteurs sociaux si si ah c'est triste en tout cas parce que déjà même boo leen seetul soo toogee di xalaat que ni am na ñu nu tëj rek yow ngay am lu la metti parce que mën nga nekk sa kër doo génn ay mois wala bu la neexee mais du moment où ñu tëj la fenn ba pare di la jox ay ordre rek c'est frustrant voilà ñu ngi leen di ñaanal yàlla génnee leen fa te yàlla leen ci lu baax ba ñu bañ ci delluwaat incha allah ñu fa duggagul yàlla um man yaay Fall la en fait dama bëgg cant bu cant am dama ko wër en plus ay murid lañu sët laa cee Ibra donc voilà man ay cant moo may bëggal en fait bu ay cant amoon fii musique am fee cant yi laay dem. dañu baax rek parce que ñu ma gën a mool ñoo fi nekk mais peut-être li tax ñoom ñu ñu ma xaw mais ñu ma gën a mool ñoo fi nekk. non sëy moom ci yàlla lay la dépendre du yow yaa koy choisir sa bopp en fait yàlla moo naan Khadija mi moment bii lay sëy kii lay sëyal voilà. c'est juste ça non non xamante wuñu si milieu bi. non non avant laa ko xam. kii c'est mon amour. c'est mon amour.

maa koy wax li ma koy wax rek mooy mu gën a fonk public leen jege parce que lii commencé gu sax gis nga nii léegi ci kanam di ngeen comprendre waaw. ñu ngi taxaw xam ne kenn dootu ko présenté ci réew mi mu bokk ci groupe boobu nga xam ne moom moo di bidéew bu bees grand bii jot na bégal xale jot na bégal mag damay faral di wax naan deux ans moom la def grand bii maa ngi lay nuyu sénégalais namoon nañ la nag. waaw mais sama sëriñ ñu ngi lay nuyu di Eh, di am kontante ci jàkkaarloog yow. waaw ci liggéey bu nice bi ngay def. ci site yi ñu ngi koy gis. et eh, di la encouragé du kontaan trop. waaw dajag yow fii. macha allah macha allah lu waral teewaay bi musique moo la indi. waaw musique moo ma indi naturellement ñëw support sama frère euh, Ngaaka Blindé. xam ne on l'a vu on l'a vu on l'a vu évoluer commencer waa je veux dire mu nekk booy bu cool. man li ma gën a neex ci moom mooy reetaan bi ree ji du musique bi rek waay reetaan bi il est jovial te loolu dafa am solo ci ci ci nit et donc voilà donc tey exceptionnellement génn bi sax d'habitude du bëri li ñuy génn du bëri mais tey ma ñëw quand même waaw support ko et seetaan si. modeste bu nekk si yéen groupe euh, groupe euh, vidéo bu bees am ngeen disque am ngeen disque teewul yéen a ngi modeste ba léegi ànd ak taalibe lan ngeen di conseiller jeunes yi nga xam ni ñu ngi doogoy door amaguñ sax yéen li ngeen am teewul dañoo yëkkati mbagg yëg succès. waaw loolu amul solo y a am na lu ñu wax des valeurs universelles nit da war te nit kuy way wala kuy def lu ni mel da ngay bëgg ku la seetaan ak ku la tàccu waaw mbiri moom du ñun rek ñun ak ñoom la donc nit da nga war a humble loolu aajowul nekk artiste wala leneen ñëwuñu dañuy ñëw sans dara dañuy ñibbi sans dara boo ko comprendre donc am na yoo xamante ne doo ci dugg waaw parce que da nga war a wàcce sa bopp daal te je pense que valeur yooyu. lu universel la weesu na diine sax waaw donc li may du sax conseil xëy na du ma wax damay conseil sax waaye damay waaw damay damay wax rek waaw ñaaxaat rek waaw nañu xam ne que àdduna am na solo amul solo waaw nañu wàcce suñu bopp xam ne que nit li ëpp solo ci doomu aadama moom muy mu amal solo moromu nitam waaw donc loolu laay wax donc tey du secret du dara da nga war a nite rek parce que nit ñi danga war a am solo pour ñoom ak képp solo ci àdduna mooy ki am solo pour sa morom nit ak loo mën a def nag muy artiste bi muy politicien bi muy sëriñ muy ku nekk na am solo ak sa moromu nit pour sa moromu nit waaw donc conseil bi loolu la nañu humble et puis xam ne que àdduna ça ne tient à rien ñu showante love parce que loolu jàmm daal moom moo jar a ñaan waaw vidéo bu bees namoon nañu leen de fu ngeen ne grand namoon nañu leen ñu ngi ci raar bu baax a baax a baax nag waaye ñu ngi waaj ñu ngi waaj album ñu ngi waaj album bu mag a mag a mag bugguma ci sori mais incha allah buñ buñ ci buñ ci buñ ci eggee dinañ leen woo yéen di ngeen ko yëg bu ko defee ñu mën a pousse affaire yi mais nag wéetuñu ah wéetu wéetu euh, paysage bi wéetul parce que ñu mel ni booy ngaaka tey ñu ngi gis booy ñu ngi def affaire bu nice boo xam ne nu ngeen gisee booy sax mais kontaan kontaan ci li ñuy def waaw job bi ñu ngi koy yëkkati ci kaw ñu ngi dugal rab bi ci kër yi ñu ngi conscientiser ñu ngi ci ñu ngi ci plaidoyer bi ñu ngi leen di gis ci immigration clandestine bi ñu ngi ci lu nekk fierté la ci ñun comme j'ai dit mënoo nekk 24 heures sur 24 ci plateau yi mënoo nekk année bu nekk ci plateau yi ñun gëmuñu loolu gëmuñu di def dara parce que dafa am lu xew Bidew bu bees dafa am Sénégal fu ñu ko teg yan boobu dafa diis donc booy ñëw dara doo ci def lu toll ni tal fatal ay ni dafa war a nekk lu kawe kawe voilà loolu moo tax mais nag ñu ngi suñu activité on travaille avec le système des Nations Unies ci ay liggéey yoo xam ne dafa fasantikoo ñu ngi dem fu bëri ci àdduna mooy waral léeg-léeg duñ ñuy gis waaw mais nag amul benn problème ñu ngi waajaat booy ñu ngi représenté bu baax a baax ñun bu ñu ñëwee dañ ci sotti rek ak def ci lay doon quoi waaw gën a dool waaw waaw mais am na yu gën a yéeme nag album bi pare na fu mu toll waaw pare na je pense que ñu ngi xool ci at bi naka nañ koy génnee quoi ñu nag ban période mais incha allah bëgguñu mu génne 2023 ba bu ci yàlla àndee